ñu sàkku nee nañu ana lan moo tax avocat boobee ak médecin boobee dégluwuñu leen loole nag la avocat yi Ousmane Sonko yi jàpp mbir moomee mbir mu doy waar a doy la médecin bi nga xamante ni maanaam moo ànd ak Sidi Ahmed Sarr ceeb oto jéggi couvre-feu bi dem jëli Adja Sarr médecin boobee anamu médecin bi fan la nekk ak lan moo tax médecin bi dégluwuñu ko ñi nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane Sonko yi ci li nga xam ne bind nañu ko procureur Serigne Bassirou Gueye ko askan la jokkoo la te loolee nag daat na yomb lool ngir ñu xam médecin beeg avocat ba yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na en li nga xam ne am na ba des ci mbiri Ousmane Sonko jamono ji xeex bi dafa yaatu lool ndax lu jëm ci wàllum yoon gaa yi ñoo ngi koy xeex lu jëm ci wàllum politique gaa yi ñoo ngi koy xeex am na nag ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ci réew mi dañoo gën a bëgg a dugal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye nag dugal gi ñu koy dugal dañoo bëgg askan wi jéppi ko maanaam askan wi ne Ousmane li nga xam ne moom la doon woote maanaam nekkul am na ñeneen ñoo xam ne jóg Ousmane Sonko ngir nag sangu ko raxas ko fomb ko ba mu set wecci maanaam wane ne li nga xam ne moom la ñu koy tuumal dara du ci dëgg yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy laaj ay taskatu xabaar ci lu jëm ci taskatu xabaar yi maanaam journaliste yi ni nga xam ne moom la ñuy traité information bi jamono ji dem nañu ba nga xam ne journaliste yenn yi maanaam ci lu jëm ci wàllum sensationnel ji la ñu nekk ñenn ñi ci lu jëm ci wàllum déséquilibre am na ñoo xam ne tëddeewuñu njaaxaanaaye am na ñenn ci ay journaliste yoo xam ne ay pro Ousmane Sonko lañu am na ay journaliste yoo xam ne ay anti Ousmane Sonko dañu jàppale Ousmane Sonko ñii dañoo bëgg a dugal Ousmane Sonko taskatu xabaar yi dañoo xaajaloo ci seen biir yéen i kaay gi di Sud Quotidien ci kàddu yenn ci ay journaliste nee am na ay taskatu yoo xam ne dañoo mujjee sax jàppee seen bopp ay àttekat ñenn ñu jàppee seen bopp ay enquêteur ñenn ñi sax dem bay tuumalaate yéen i kaay gi di Rewmi Quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu Abbas Fall mi nga xam ne moo jiite Pastef Dakar ak jabaru Biram Souleye Diop ñoom jamono ji ñoo ngi ca garde à vue yéen i kaay gi di Libération nee na li nga xam ne moom lañ leen di tuumal dañoo yónnee ay message yoo xam ne ay menace de mort la ku ci mel ni Mahmoud Saleh la ñu ko yónnee ak yeneen kilifa ci réew mi yéen kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa activiste bi di Guy Marius Sagna na li nga xam ne moo jëm ci wàllum dictature ci Sénégal da doon raam dictature bi da doon raam waaye nag jamono ji dictature bi dafa na du taxaw ndax trop c'est trop loolee kàddu Guy la yéen kaay gi de la sa Vox Populi Rewmi Quotidien Sud Quotidien nee nañu commission des lois ci Assemblée nationale niki démb teg nag li nga xam ne mooy commission ad hoc réunion nañ niki démb en tout cas ndaje moomee tàngoon na ndax ñoom Cheikh Bara ñoom Aïda Mbodj ak ñoom Cheikh Bamba Dièye nee nañu boo xam ne contre x la nan la ñu si mën a simmee malaanu kiiraay ab député ñoom nag ñaawlu ko ba fa ñaawlu yem Aïda Mbodj nag moom li nga xam ne moom la ñaawlu nee nañu lan moo tax ñu mën a jël ab député boo xam ne ci Idrissa Seck la bokk ba koo def député non inscrit te Idrissa Seck ñëpp xam nañ ne mburu ak soow jamono ji ñoom ñaar ñoo ànd Aïda Mbodj li mu xam le nee na ñu jël Cheikh Bamba Dièye ndax ci non inscrit la bokk yéen a kaay gi nee na ñi nga xamante ni ñooy waa commission ad hoc bi ñoom dinañu génne ab rapport bu ñu génnee ab rapport nag moom la ñuy jébbal assemblée nationale ngir nag ab séance plénière commission ad hoc boobee nag mën nañoo woolu Ousmane Sonko ngir déglu ko waaye Ousmane Sonko njiitul Pastef su ko neexee lànk yéene kaay gi de la Tribune am na benn étudiant boo xam ne Pastef la bokk moom nag dafa menacé de mort ki nga xam ne mooy journaliste bi di Maïmouna Ndour Faye nee na Maïmouna Ndour nit ku dangereuse la maanaam ne Boubacar Biaye la tudd nee na ko soo manqué respect rek sama leader dinaa ñu wax ko lu doy waar a doy waar yéen a kaay gi de L'As moo ci xëy yéen a kaay gi de Libération nee na nag taax mi nga xam ne dañu ko doon tabax taax moomee daanu ca xodd ba am na lu toll si juróomi nit ñoo xam ne ñàkkoon nañu sa seen bakkan waaye directeur général bu 3MD énergie daanu na jamono ji nag ndax nag amutoon permis amutoon assurance maanaam amutoon sañ-sañu tabax yéen a kaay gi nee na entrepreneur ak chef de chantier ba jamono ji gendarmerie teg na leen a kaay gi de Stades nee na Ligue des champions Liverpool bu xam ne du ñu xam la ñu ko yàkkalee ndax tey ji Leipzig mooy